mu noppal ko loola la yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam bàyyi na fi yu bari ci yoo xam ne moo nu jifee noonu suñu ngëm ndax yooyu yëpp buñ ko seetee bi ci mujj gën ci am solo daanu ca dem moo di sëriñ boo xam ne mooy cheikhul murab bi bu mat sëriñ moom la ñuy mujjee waaye bokk na ci tafakkur tafakkur lan la méditation la ko tubaab di wax mooy xalaat nekk di xalaat xalaat nag dafa am ay charte yi ko jiitu nit ki na jàng wala na laajte ba xam ne du xalaat li mu warul a xalaat la mu war a xalaat lay xalaat li mu war a xalaat lan la nay xalaat li passé ci dundam te jaamu ko yàlla muy delloo si perte googu ci xolam di ko naqarlu di ko jéem a dabaatal nay xalaat ñi nga xam ne sun borom def na leen ñi ñi ko féete suuf gën koo ñàkk chance ci àdduna wala gën koo ñàkk iman ndax muy sant yàlla di xalaat balaa yi nga xam ne sun borom teg na ko yeneen jëmm te moom tegu ko ko muy sant yàlla bu ko defee di xalaat xéewal gi ko yàlla xéewal dana tax muy gën a bëgg yàlla ndax ki nga xam ne moo lay defal lu baax di la defal li la neex di la defal lëggan di la ko tànnal toujours da nga koy bëgg bu ko defee loolu dana gën a xëcc xolam dina ko ci bëgg yàlla te bëgg yàlla mooy waral ak texe daanu ci dem bu soobee yàlla nga xam ne kon noonu muhammad alayhi salaam nekkee woon ak saxaaba yi di leen teqantal nga xam ne bépp xew-xew bu jóg dana leen xamal la mu doon xamal leen lu tax xamal leen la ci yàlla jublu ak ñoom seen position lan la ci war a doon fan lañ ko war a teg nan lañ ko war a defe loolu tax lépp mbir mu mag mu xew nga xam ne dana tax doomu aadama war a tiit wala mu war a jaaxle di xalaat li mu doon dañ koo sant mu dellu ci boromam bu ko defee nga xam ne delloo na lépp ci boromam dara amul kàttan dara amul jëf dara amul jeexit lu dul yàlla bu ko defee lépp day dellu fi yàlla mu delloo lépp ci yàlla ba nga xam ne amul dara loo xam ne ni lu sore yàlla la ci xew-xewi adduna mais naka noonu bu mu àggee ca kanam daanu misaal lan mooy secret bi waxtu woo xamee ne jamono yooyu mbir yi gën a rëy te mën a dajale dëkk yu yaatu ñëpp gisandoo ko te mu gënul mën a jaaxal doomu aadama mu di njàppum jant wala njàppum weer wala kàddu gu dal wala yooyu yëpp lu ci mënti doon ak ni nga xam ne noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa daan sant ñi di ko jëfe ak nañu daan delloosee seen xel ci yooyu yëpp nga xam ne itam nit ki waxtu woo xame ni rek lu mel ne musiba dal na ko alquran daf ko wax ne nag dellu ci yàlla ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun ñëpp yàlla nu moom te ci yàlla rek la ñuy dellu bu ko defee bu nit delloo see xelam ci yàlla xamul nan lay delloo ci yàlla ëllëg xamul fu ko yàlla di féetale ñuy xew dana daal di tuuti ci moom ci moom ci amul xam-xam ci am xam-xam nag daañu jaar foo xam ne dana tax mëpp mbir mu xew dana xam moom mën koy féetale nga xam ne kon buñ seetee ne yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu ñëwee am na ñooñu séenaan bi mu def ci lañ ko gëmee am ñoo xam ne dañ koo xamoon jëmam xam jikkoom xam ay meloom ba mu daataan woote ne yonent la ñu ko umpale woon moom lépp gis lu mu indi mu di alquran wane ne ci yàlla jóge ñu xool alquran ñuy gëm ndax ñi ko xamee woon démb muy nit ku mat di ko am xel di ku nit ku rafet ay jikko ba xeeti mat yëpp jeex bu matale ko loolu tax ñu daal ñu kon ci lu mu wàcc rek dëgg la ndax du fen ñu ne ñun de alquran bi mu indi kawtee ci wax la joo xam ne benn doomu aadama mënu la wax wax ju rafet noonu wala ji ñu rek loolu loolu lañ ko gëmee ñenn ñu seet li muy santaane ak yoon yu mu xotti li ñu dinañ ci jaar ñu am xel seet yoon wi la ca nekk ak la muy déwéne ak fa muy jële doomu aadama ak fa mu koy yóbbu loolu tax ñu gëm loolu bii bii démonstration maanaam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne dañoo am xelam lépp lu ñu wan ñu mën ko examiner seet ko ba xam na ca jub ak na ca dëng a nangu ñii xam ay jikkoom démb ak bërki démb mu ne su fekkonte ne ñett nit dañu ñëw ñetti doomu aadama ñu woote ne kenn ku ci nekk ne moom xaafis la maanaam ku wattu alquran la nga bëgg xam ndax wax nañu dëgg wala déet nga ne leen ah man kat nangu naa li ngeen wax weddi ko waaye kenn ku ci nekk danaa laaj lii sa dalil ci ne xaafis la moom ñett kenn ci ne man danaa la woon sama ijaaza bi nga xam ne ci dàq alquran ci réew dàq see jàngale te ku nekk xaafis ñu bindal la ijaaza bindal na ma wan la kayit bi nga gis bindum kooka xam ko gis signature bi xam ne jiwa